Bienvenue sur KS Sport TV Malika Live TV et Yoonu Ndam TV comme ni ñu ko doon defee rek ak gars yi euh, des émissions yi nga xamante ni ñoom ñoo fi doon euh, événement yi fi xew mooy au niveau des ASC muy réservé, yi PV yi tey ñu am gan gu mag euh, pour mu leeralal ñu lu bëree bëri ndax ku ko xam-xam ni xam-xam bi màcc na ci wàllu texte yi ndax il a été un gars qui était vraiment au niveau de la zone 11, euh, en l'occurrence euh, auparavant, au niveau de la zone 9 auparavant, après la zone 11, il y a une zone B aussi un rôle pertinent pour jouer. Euh, je suis venu à pour le bari moment ñuko leralal ci taxi muy mohamedou ba mohamedou ba ñu ngi lay nuyu assalamu alaykum dila fay bonsoir donc à Malika TV KS TV. ndam di len euh, ziar bu baax di rafetlu tamit euh, invitation bi peut-être ñuy dugg ci am solo de ni wax deug yalla dina dina défar lu bari ci li nga mhm. parce qu'il n'a tax ku xamul won mu xam. Mhm. ku aussi tamit la. Mhm. dina tax aussi tamit lu bëri loo xam ni doon na indi coow wala muy indi xët-xët. Mhm. ci ñàkk xam. Mhm. donc euh, mu nekk loo xam ni dina tax nit ñi daal mën a mën a mën a dellusiwaat quoi. parce que la wax rek li wax ni tey jii nii dañoo jëm ci ay échéances yoo xam ne ni ça vient à son heure. parce que si mhm. quart de finale mu toog. donc présentement nii. amana dina defar lu bari ci lañu jëm ba yenn coow yi doon am peut être mu mu mu wàññeeku mhm. parce que nit dina def dara loo xam ne ni ñàkk xam la mhm. te je pense que buñ ko xamalee donc dina mën a wàññi lu lu bari ci ci ci ci ci échéance yi c' très bien mouhamadou comme euh, euh, ni nga ko waxee rek euh, ñu jëm ci échéance yi xam te ni yaakaar naa buñ génnee ci au sortir de cette émission buñ ci gënné ñu bari dinañ ci tirer ay leçons mhm. bu baax baax luñ ci xamul won ñu jëm ko cee xam mhm. ñu gis ni depuis premier tour bi ba ñu yegg si mhm. euh, des cas de réserve muy ay fraude yu gars yi japp des cas de fraude xam daw na fi réserve def évocation chaque fois équipe bi génn ak à sa faveur mais vous défé évocation mu évocations, ñuy laaj lolu lan nga ci mëna analyser analyser il faudrait que ni ASA jëm ci benn mbir muy que ni nawetaan du football kese parce que bu ñu waxee nawetaan il y a ce qu' on appelle une partie administrative cette partie administrative là est très importante mm-hmm. ndax benn nit day football ba pare mm-hmm. ñu gagné la ci biir terrain bi nga wàññeekuwaat ñu ne diw de PV génn na jox nañ ko ndam loolu fu muy jaar mm-hmm. c' est parce que ni partie administrative bu la beneen ASA bi di topp ci lan mu jëm ci ñaari mbir mhm. lu ñuy tuddee réserve ak lu ñuy tuddee évocation réserve mhm. mooy maanaam la nga xam ne ni da nga koy def balaa ñuy tàmbali match bi avant ñuy démarrer match bi bu équipe bi ñëwee bu équipe yi ñëwee ba ñu def présentation ba pare parce que da gis arbitre day ñëw jour ñëwee présenté wu mhm. mu xool licence bi jox la yow beneen capitaine bi nga xool c'est pour que éventuellement nga xool ba xam ndax waa ji présenté wu si man ndax qualifié na wala qualifié wul pour football parce que booy gis réserve dañuy je dépose une réserve sur la qualification et la participation donc yow mi nga xam yaa jàkkaarloog joueur bi mm-hmm. ndax qualifié na d'abord pour mën a mën participer ci match bi mm-hmm. yow boo gisee ni par exemple am na lu mm-hmm. ci qualification bu boobaa bu la neexee mën nga ni bu porte damay déposer une réserve sur ce sur ce joueur là maintenant réserve ci ban cas avant match bi démarrer avant match bi di démarrer ngay def réserve maintenant yow mon réserves. def réserve te réserve dafa am ay cas les loo les texte prévoir ko moo xam la moo xam motif hmm. motif yëpp lañ motif. réserve ci motif est ban réserve. ci ban ci ba en général motif y ni la ASC di bu ñuy wax ay si euh, euh, nu mu tuddati ay licence non déposé mhm. surtout cas yi nga xam ne ni avant ñuy football ASC dafa déposé licence am mhm. di xaar licence bi génn jour bi bu xësee ba déposé licence bi 24 mhm. quatre heures bu licence amee 24 quatre heures c'est-à-dire que man damaa war a football suba suba ci ban heure 15h la wara football mhm. donc avant 15h warna dougal licence bi mhm. buñu xëcé ba enregistrer avant 15h mhm. joueur bi est qualifié pour que jouer à 15h ça pour autant licence ça pour autant licence am guen lolou lañuy tudd lañuy jouer sous licence déposée ld ld mo lañ wax ld té bo dafa am ay préalable muy asc il faut def attestation sur l'honneur joueur bi signé attestation sur l'honneur pour wane ni kii nii wala ñii parce que si vous avez une nit la euh, attestation sur l'honneur bu dee nag nit ñu bëri la tour figuré ak un numéro pièce d'identité après ñu signé maintenant ñoom bu ñuy jouer aussi mhm. tamit dañuy signé euh, ci feuille de match bi. Mm-hmm. parce que place bi nga xamné ni fa lañ waroon def euh, euh, ki num mu tudd sax numéro licence bi. ñom joueur yi fa la signer ñom ñoom mm-hmm. ñu joué LD. maintenant buñu signer fofu non ba paré ñu dogo nak commencer nak di jënti fofu moy licence déposée. Mm-hmm. non déposée. mu joueur mën na ñëw mu indi carte d'identité déposer na licence bi fekk na ASC bi da fay da fay jouer ci li ñuy tuddee. waaw waaw parce que danaan non comme que joueur bi am naa ko te joueur bi c' un c'est un élément clé yéex naa déposé licence naa ne licence déposé rek. Mhm. suñ ma waaw boole waale ko ci. léegi nag maintenant dañuy jouer au au plus fin. Mhm. parce que lépp sport boo gis am na sàcc am rouage yoo xam da nga ciy jaarale ak yooyu. Mhm. yooyu da cee bokk. léegi nag bu joueur bi ñëwee day jouer LD mais équipe yu bari li ñuy def moy xamuñu ba xam déposé na wala déposé wul. donc immédiatement dañuy jël rek daldi daldi daldi daldi daal di daal di ne damay damay damay damay porter réserve damay déposer réserve si lan licence non déposé. légui ASC bi ñuy porter réserve licence non déposé mais mom bu fekkee ni gis na ni. Mhm. ñi licence bi ñuy déposer ni c'est vrai que ni man am naa ci jour yoo xam ne ni déposer wu ma seen licence. da leen di rocc da leen di rocc waaw. mais nag bu ASC bi déposer wu licence bu déposer wul réserve ñooñu joué. Mhm léegi jour bobu ñu rocc. ci boppam. moom ci yoon mom comme rocc nañ ko rek. déposer wuñ licence am rek. mom si si si bi yëpp. Mhm. mooy durant la saison. Mhm. moom dafay nekk jour bam tamit dañ koy top foofu waaw parce que day li dafa am loo xam dañuy nan li tubaab naan naan naan naan substitution. Mhm. maanaam dañuy yee ñaaw ñaaw njort. parce que une fois que yow ñu def réserve ci yow. ASC boo mënti dajeel bu ñëwee danaan licence noo déposé moom tamit mais nak, bu fekkee ni une fois la am. fekk ASC déposé ko ba match match gis na ni jour boobu noonu déposé nañ licence am. Mhm. mais ASC bu ñëwee damay damay réserve ci licence non déposé bu ko neexee bu boobaa ah, mu ñu ñoom ñu ne non non je confirme. parce que leer nañ ne déposé na ko. léegi ci ban cas la ñuy évocation. waaw avant ñu ñëw dañuy ñëw ci jeexal ci ci ci ci réserve. parce que benn motif laa licence non déposé. Mhm am na cumul de licence. cumul de licence moy am. licences licence am licence. wala nga am licence ci même ASC e, mais ñaari catégorie une moy jour mën nek, ñu defal ko licence cadet. mo mhm. xamni licence frauduleuse la. Mhm. defal une licence senior. ASC e par exemple je suma ma en 2006 mhm. ou 2005 boobu pré bokkul woon ci lu pré lu ñu prévoir woon ci texte yi. Mhm. texte yi indiwu ko woon. mu amoon ASC jamono ASC espoir ñu daje woon. je pense demi finale la woon. demi finale ou quart de finale. quart de finale la woon sax ci benn boy maroon. Mhm. je me rappelle parce que boobu maa ngi woon secrétaire général ASC espoir donc maa doon bind kii. Mhm. booy dafa am licence cadette ñu prévoir ko. Euh, ak ci benen benen tour mhm. ak benen date de naissance mu am licence senior en même temps ñu comme on avait l'habitude bu ñuy dajeek équipe dañuy dem lijjanti lëj mbët mhm. sur le plan administratif yan yan yan yan waaw avant le match parce que ñi préparé match bi ci ci ki bi man non la doon génnee tamit di wori di préparer ci këyit xamni fi bo ñaké xamni fi suma ñaké fi ni fii naay dem parce que jamono jooju aussi jamono dafa nekkoon bête noire espoir ba yow boo doon dajeeg moom. Eh, doo bàyyi dara <laughs> doo bàyyi dara boo niilu da lay dóor. Mm-hmm. donc ñun aussi tamit fam foo xam ne foofu la ñu mënee woon ñu tamit foofu dañu ko doon lijjanti. Mm-hmm. dem na ci ba sax après jamono fu muy dajeeg espoir buñ ne dañuy dañuy dem ba sax xam ne ñi eh, ñii ay c'est pas des cas yu valable lañ ils sont qualifiés et tout. Mm-hmm. mais dañ naan dañuy réserve parce que jamono buñ ne espoir ne damay réserve rek. ci saas da ngay gis mu rocc.

Euh, euh, euh, substitution de photo. Mhm. mooy maanaam ma teppi sama photo. taf ci photo Mansour. am na aussi tamit substitution par exemple amna amna amna aussi tamit euh, euh, euh, euh ni euh, ñu koy encore Manam, manam, non wow, Manam substitution de personne mhm, mhm, mhm. dafa am substitution de photo mooy photo bi tête teppi taf mais substitution de photo personne la moi Mansour quarantaine les Mansour xaw nañu nduroo ma ñëw placé à la place de Mansour donc substitution de personne la parce que qui moom licence bi du yow mais nous, nañu léegi damay substituer à ta personne pour ñëw taxaw loolu substitution de personne léegi nag photo la moy manam photo bi nekkoon ci licence bi mom la teppi taf ci sama photo man mais moomuma licence parce que moomuma tour bi tuduma loon mo am benen nak moy mom moy bobu mom moy benen fraude bi moy fraude sur l'identité l'identité de la personne de la personne bobu boobu en général lu cey gëna a bëri moom mooy en catégorie cadette cadette waaw en catégorie cadette nga xamni da ngay am tour bi ni ci une licence ba paré licence bi en cours de validité nga am benen tour donc fofu dañ fraude sur identité parce que tu as deux noms différentes deux dates de naissance différentes et deux licences différentes donc bu boba tamit fraude sur identité lañ koy lañ koy tuddee mu am tamit aussi tamit

ah à la délivrance ou au renouvellement wala boy renouveler licence bi mhm. nga yokk ca loo xam ne nekk ca woon waaw tamit falsification et la délivrance ou renouvellement loolu nag motif yëpp yooyu mhm. mën nañ ko réserve Yep, mën na réserve te l'ol c'est avant le match Nous faisons ko aussi ASC yi que ni yow buñ la réserve mhm. réserve nañ la mais yow tant que arbitre taxawul fii nii dina damay siffler su la neexee mën nga revenir comme par exemple man réserve mhm. réserve bien def ci man c'est bien valable mais ma dëgër man damay jouer mhm. wala xamuma ma ni je maintiens mhm. wala je confirme le joueur pour me jouer pour me jouer mais madame dem ba ci biir sama biir ASC secrétaire bi dem lij mbët ba xam joueur bii ma bëgg a confirmer maanaam baaxul si vous continuez, bu vous même pour je vous vous ma réserve day jour day mhm. avant arbitre de siffler début du match mën ne revenir. Je ah, revenir ah, avant arbitre siffler revenir. mais bu dire que mën nga ñëw ba ci arbitre nga ko arbitre ah, réserve bi ci

Tay su may de Mansour mi lay lay lay lay réserve. waruma bind je dépose une réserve sur la qualification et la participation par exemple de de de de de du numéro 10 de l'ASC par hmm. exemple la fay. Hmm. mais le numéro 10 de la fay c'est qui. il n'a il n'y a pas de nom. donc da nga Mansour Ka numéro 10. licence numéro nangam nangam de l'ASC Ndéla Faye la la réserve elle est nominative. elle est nominative ñu xam qui ci kii la la

aux secrétaire général légui maintenant d'écrire mm, te may nañ lo aussi réserve nga dem ba xol parti bi nga xamni mom la zone bi di génnee à chaque fois mm. si PV 00 bi nga xam day décliner nan lañuy ñuy réserve mm. nan la ñuy évocation mais may nañ la nga dem jël sa bout de papier nga bind copier ko téyé ko bis manqué dara du ci manqué bo démé ba réserve nit nga ñëw teg ko ci kaw table di xol di recopier kon donc foofu réservement libelé mënatul mënatul am xana lenn rek moy mm-hmm. substitution de motif mm-hmm. la ñuy tere mooy nga jël ben jour Nanway, je dépose une réserve sur la participation et la qualification du jour Même fofu aussi tamit, bu ñëk rek na qualification moy jitu participation ñew. Mais les qualifications participation bo mënti jital tamit grawul parce que fofu mënatuñ ko continuer comme normal li balé. Bo xolé li nga wax yépp. Aha. Dañ ci delu ci rek moy. Aha. Li nga wax yépp kon la formation mo moo C'est très important. parce que tégal nan gars yi la ngam xam tay moy comme li nga wax tay ci le secrétaire général. Mhm. Euh, au niveau de la zone. Mhm. PV 00 bi. Mhm. am droit de table di donc formation moi moi def défaut. Moi def def def défaut. manger vite les les AEC. parce que gis nga tay joxuñu la ASC nga nek ci wala nga nek ci ci ci uniquement pour gérer le football la partie footballistique parce que aussi association formation là parce que mënuñu la dénk lu gën a important mooy lan mooy ressources humaines ay nit ñëw daw wut ci la yow mi ASC ba pare yow lijjanti woo leen lu lan la ñuy fubale mais am na ay xale yu nekk xale yoo war nañ jël en charge seen formation formation mën nek nekk ay xale yoo xam par exemple tey ASC bi ne man ah école ubbi na am wala amna na ñenn wala ñaar ñoo xam ne gérer le volet éducatif parce que aussi les postes au niveau des ASC dañ koy bind nii kese pour la forme mhm. mais amul benn lo xam ni ni nit ki par exemple man gérer par exemple socio éducatif mhm. mais bu ma gérer commission socio éducative war naa dem sama xel ma ma ma projeté sur lu bari mhm. mooy sama koñ ba ma nekk am na xale yoo xam dañuy mais am na ay étudiants yu fa nekk mais nan la def ba forme ba toog ñëw def benn kii boo programme boo xam ni mais élèves nañ leen accompagner. dëgg la dëgg la dëgg la moo xam ay coup de renforcement mo xam leneen parce que aussi formation bobu ASC da ci am wàll ba paré aussi tamit ASC yi cro euh, euh, nu mu tudd sax euh, organigramme un cave mhm. dafa wacc ba ci ASC mais très rare ngay dem ci ASC gis ni ni kii moo gérer communication formation doo ko gis doo gis wala buñ ko ko ni tamit c'est pour la forme mais il communique pas il forme pas le football pourtant la formation est très importante C'est n'est pas juste par rapport Au textes et autres mhm. mais man tey su ma je administration tout ce qui est lettres et autres mais attends c'est grâce au mouvement et eh, mais sur les feux du projecteur di mais mhm. c'est grâce au mouvement Nathan parce qu'on m'a formé mhm. mais il faut qu'il y ait une volonté mhm, parce que je ne sais pas uniquement par exemple de former mais quand tu formes quelqu'un que mais la volonté individuelle individuelle de celui qui est formé uh-huh. Parce que le formateur, il est là. Il peut donner ce qu'il a comme expérience. Mais c'est lui qui reçoit, s'il n'y a pas la volonté à intégrer, mais attends, ça c'est un problème et de comme fi nga wax rek euh, yan euh, si biir euh, comme fraude bi. Mhm. euh, les réserves. Mhm. les cas d'évocation bon ban ban instant la ñuy def évocation. ok sànq wax naa ci réserve ne la tous les motifs la le a jël. Mhm. mais évocation du motif yëpp le mën jël. parce que boo nee damay évoquer pour lan cumul de licence non <laughs> cumul de licence tout ko évocable. ban cas la évoquer. cas yi évoquer.

délai euh, en général si vous avez ci championnat. vous nekké ci championnat manam di football ni bon amagul dóor nekkagul dóor mu ak 48 heures. après le match. après le match. avant match premier jour ouvrable. après le match premier jour ouvrable 48 heures fa lañ koy dénommer. c'est-à-dire que c'est pas après le match comme le football à 17 heures donc ni non premier jour d'ouvrable de permanence. Mhm. bu vous lañ commencé di décompter les 48 heures. 48 heures de match, vous après 48 heures dugal considéré comme fort maintenant évocation dafa am leneen parce que l'évocation, si beaucoup de faits. Mm-hmm. Si ñu bëri ñu xamul en championnat mm-hmm. l'évocation n'est pas suspensive cest à dire que si vous avez fait su évocation vous du comme tey ma sama première match mm-hmm. ma 10 ASC à ASC Diso par exemple ASC 10 Fay il y a def évocation sur diso mhm. mais ça ne veut pas arrêter le championnat bi le championnat de continuer dem parce qu'en championnat on ne suspend pas mhm. les matchs quand il y a évocation mhm. mais on suspend les matchs quand il y a évocation su que dóor bu toog la en match phase de phase finale phase finale ah. donc les mën naa xaar heure bu génnee ñu ne am points wala am nga 0 point mais fini nii dóor mu toog parce qu'il faut forcément kenn toog dañuy statuer ba pareil ba ba ba ba PV génn. Mm. bu PV génnee ne diw de moo évocation bi par exemple il a gain de cause. Mm-hmm. wala évocation bi baaxul. bu boobaa nag ñuy doog xam continuer le championnat. mais su fekkee ne amul moom mooy loolu. léegi kan mooy statut kan mooy statut. waaw statut euh, euh, bu dossier amee dafa am ku ñu commission bu ñu tuddee mooy commission règlement et pénalité commission qualification règlement et pénalité CQRP. Mon est à la. niveau de la zone. Mon première instance. parce qu'il faut faut ñu xam ko mooy première instance. membre il faut que nous membre yi. membre euh, au niveau de la zone C'est le comité directeur. parce que vous voyez toujours si ñu ba nawetaan dañuy changer renouvellement. si mm-hmm. ASI, e lay commencé ASI, e def une assemblée générale ordinaire. donc ja bokkul ak extraordinaire. membre ASC yi moom. membre zone moom ñoom ku nekk si benn. ASC lay jugee. ASC bu nekk ñetti nit lay envoyé. Mm-hmm. ñetti membre ñetti membre trois Jokko trois ainsi trois ainsi de suite tey bu ñu amee dix bu ñu amee dix ASC trente membre la ñu am bu ñu amee quarante euh, quinze ASC ñu am quarante cinq membres trois ñu ko fa représenté maintenant ñetti ñooñu nag seen biir ñetti ñetti ñetti yooyu seen biir ñoom ñooy toogaat seen biir fal li ñu tuddee bureau. ñooy fal président ñooy fal. vice-président chargé de la CQRP vice-président chargé de la communication formation vice-président chargé par exemple euh, euh, sécurité fair play ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite maintenant il y a des postes de vice-président et des postes donc de président de commission tout simplement bureau comité parce que nous bureau parce que le comité directeur et le bureau le comité directeur c'est l'organe qui prend les décisions je ni ne le bureau suis mooy doxal ci réunion de comité directeur je je réunion ne nangam ak nangam lañ bëgg ñu doxee léegi ba réunions, réunion mm-hmm. bureau bu ñu demaatee ba prochaine réunion nag comité directeur définir at encore ñu daxaat lañ leen nit ñu demaatee waaw moo tax réunion comité directeur warul bëri mm-hmm. ñetti yoon la ci année bi gën ngaa gën ngaa gën ngaa bëri mais nag dañuy gis ne des fois aussi dafay sooxe au niveau des zones parce que des fois dañuy jàpp ne ni comité directeur bi bu ñu ko woowee rek dina am ay chambre waa lu mu jaxase mm-hmm. moo tax des fois dañ koy dañuy dañuy dañuy dañuy dañ koy tëb mais c'est très important ñu koy ñu koy woote yenn saa yi cas de réserve yooyu ak cas de

48 heures pour les championnats, championnat déposer une confirmation de réserve. maintenant confirmation de réserve boobu ngay déposer non. dafay da ngay bind par exemple wax qui il n'est pas qualifié. Mm-hmm. est-ce que réellement en réalité il la. Mm-hmm. parce que da nga non waa ma cumul de licence mm-hmm. parce que waa ji dafa une licence. tuddum numéro sa nangam nangam nangam nangam di jouer ASC nangam amaat licence numéro nangam nangam nangam wala di ko jouer si tour bi même boo amul numéro licence ba muy fubalee mais neel tour nangam la koy jouer waat foofu ah. ba pare si ASC nangam nekk zone nangam ODCAV nangam bala neexee ma ngaa bañ a tudd sax ORCAV mais neel ASC bi zone ba mu bokk ak ODCAV ba mu bokk parce que boo nee ODCAV par exemple de Mbour. Mhm. ne ASC nangam nangam nangam ñu dem seeti ko foofu. yéen a koy seeti. zone moo koy dem seeti ji maintenant dafa am ñaari mbir mhm. su fekkee ni waa ji confirmé nga wax mhm. zone yoon ba mu war a jaar pour. pour pour yow étayer yow li nga wax. mooy maanaam leeral li nga wax yow ne dafa am cumul de licence wala dafa am leneen ak leneen bu fekkee ni ASC ba Dakar la nekk. yow mille francs ngay dougal, ci biir enveloppe bi quelque quel que soit alpha droit de confirmation de réserve trois mille la la du deug Dakar la dafa war a génn trois mille force dang koy dougal mhm. buñu ouvé enveloppe ba gis confirmation de réserve gis trois mille mhm. bu pouvez dañ naan la sur la forme mhm. dañuy recevoir nañu par exemple euh, euh, euh, réserve parce que les droits y afférents avec la confirmation vous ñëw matal ngoko forme maintenant ñu doog a ci fond bi fond bi mooy bu fekkee ni Dakar la da ngay gis CQRP avec le président parce que bu bu dossier ñëwee enveloppe marché yeeg confirmation de réserve yëpp seul président moo am droit ubbi ko président CQRP kese yeneen membre yëpp duñu laal président nag bu ko neexee comme que am secrétaire mu ne sama secrétaire boo ñëwatee ubbil nga xoolal ma defal ma duñu tuddee pré mhm. étude pré étude bi xam nga mooy lan mhm. mooy dañuy ubbi xool ñii day confirmation réserve def dañu njëkk a xool est-ce que ko bindee baax na mhm.

dalay wo président ne ko dossier ñew na fi de waye xol na sen réserve bi baaxul c'est mal libellé mu ne kon classé ko légui nak ñom buñuy dem bay génné PV dañuy wax né ni réserve amoon na confirmation amoon na mais la réserve est mal libellée donc sans suite kon foofu kenn du son mais bu féké ni la réserve est bien faite mm-hmm. la confirmation et les droits yi afférents ñu ngi ci mm-hmm. bu boobaa bu secrétaire administratif wala président bi défé pré-étude ba paré mm-hmm. bu bob day xool mom joueur biñu wax. ba xam fan la lay wara a seeti jee. bu la day dem ODCAV. bu demee ODCAV day xol laajte ba xam ndax amna na bordereau boo xam ne wane ne ne waa ji déposé woon na fa licence. bu ko ODCAV confirmer né ko bordereau bi mu ngi ni mu défat benen ordre de mission. bo xam day dem orca pour dem xoli voler deux licence bi. parce que aussi duñu tamit àgg na fa. parce que volet volet la waaw volet waaw bi moom moy mooy ODCAV non bordereau moy des ODCAV. ak parce que zone amul bordereau. Bodoro. yéeg bordereau yi tey booy déposé bordereau ngay déposé Bodoro, quatre bordereau ngay déposé. Hmm. Ben bi ASC dañ koy retourner moo ko Ben benn bi ODCAV ben bi Orcaf, ben bi Oncaf. maintenant escalier là, parce que non la non la kiy doué. ASC la zone ODCAV Orcaf, Oncaf. maintenant. su fekkee ni dem na Orcaf, gis seel volet volet deux bi ba gis ko hmm. mais bu ñëwee day vous aussi bu cumul de licence la ba xam ASC deux. Ils mom volé deux. Ils dem xoli dem volet 2. ñu dem jëli volet 2 bi bu bu gis volet 2 bu ASC ont ak volet 1 bu ASC bi ñu maintenant fan la ñëk volé fu mu ba

mom ASC bob day perdre match bi parce que joueur am fait football fenen <laughs> day perdre match day perdre match bi. joueur bi nak joueur bi mom tamit dañ koy suspendre. bu fekkee benen cas bi la. bu dee benen cas bi le joueur bi rek lañuy suspendre ASC bi du perte match parce que loolu aussi dafa jar a leeral. ci cumul ci cumul de ci cumul de mën na ko am ci joueur. waaw lolo waral mom muy mom muy muy muy garder trois points bu garder trois points. parce que foofu tamit euh, euh, dañuy bañ parce que joueur bi mom mo incriminé wu c'est pas l'ASC c'est pas la e. moo tax faut cas de cumul de licence toujours dañuy xool valable jour bi fan la parce que jour mën naa démissionner fii ba pare mm-hmm. mën na démissionner fii ba pare mm-hmm. mais attends demaat feneen dem dépose njëkk fa déposer licence comme mën naa mën naa mën naa mën naa loolu maîtriser moom rek moo koy xam daal kon donc yar bi ci moom rek lay dal ci dal ci kële ci ASC e bi waaw ci comme kaaw kade yi cadet nga jouer comme cadet bu jouer espoir. Mhm. mais les cadet xarañ. Mhm. Euh, pour pour jouer à am guerre. Djoko jeex. Mhm. Euh, pour jouer ko senior. Je ne mais espoir nanguwul ko football senior. mu dem jo euh, parce que fois gars yi ni ñu licence.

ASC si vous 100 mille ASC e 75% zone jël 25%. cinq 75% cent ASC e zone délai ne 75 a joxe balaa vous wala vous zone ci vous day parce que moi, je en charge les 75%. mais est-ce que ASC e bi foofu tamit. Mhm. moom zone rek mooy dem wala ASC. E zone bi mooy dem. ASC e bi du am non non zone non ASC ASC e, yoonam nekku si. ci zone rek moom mooy moo am droit dem lëñbët luy dossier mais du ASC. léegi nag bu boobaa ASC bi mën na ñëw négocier ak zone. Mhm. na ko man instant yi aw ma xaalis. wala nangam ak nangam yooyu yëpp mën na ci biir ñoom ñoo xam seen biir nu ñuy def. Mhm. wala ASC bi tey mun na am code part nekk fa mu ne zone bi dagg ko sama code part leneen ak leneen nag mu ngi ci.

am fond forme bi déjà dafa am ñu la boy bind évocation nga évocation relative ah. à la muy ñett yi ma la wax fraude sur identité wala suspension non purgée wala euh, falsification à la délivrance ou falsification au renouvellement maintenant loolu su amé après nga expliquer yow li nga bëgg wax bu dee suspension nga ni fan lañ ko suspendre kay lañ ko suspendre ci ban match la woon nangam ak nangam est-ce que tout na ko wala purgé ko nga expliquer bu faites aussi fruit la. Mhm. nga ni fruit bi dañoo teppi taf. Mhm. wala dañoo def nangam wala dañoo def nangam wala dañoo def nangam. parce que même teppi taf boobu des fois day indi problème. Mhm. parce que ASC mënuñu ñu présenter wu ba paré mais mu ñeu xol mu ne ki photo bi arbitre photo bi mom la parce que l'identification, c'est le rôle de l'arbitre. arbitre. arbitre bu ne ki mom la mënoo ko téré football yow yow yow yow équipe bi. même bu fekkee yow xam nga ni ki du mom kii du moom. nag nag nga nag la nag la zone la xam nga bu njëkk ba. bu bi ne kii moom la yow amoo ci benn recours. Mhm. da ngay dem day fubal force la. muy fubal sa xol di tàng sa xol di tàng. nga naan Modou Fall du moom du moom moo moom moo waaw ak lii te du parce que arbitre des fois am na arbitre yoo xam des fois dañuy xool da dañuy xam ne ni kii du moom. Mhm. mais ci moment boobu nekk ay rocceeg jàppal bàyyi ay forum góor la fubal leen. boobu nag yow bu fekkee amoon recours munoo ci daara nga ci mën bu njëkk ba bu njëkk ba mais nag bi demee ba ci biir xam ni des fois arbitre aussi nit la day juum mhm. nangam ak nangam ñu ne léegi nag may ASC yi ñu am beneen recours mooy ci lan ci identification mooy tey jii nii bu arbitre ne kii moom la mu yow mu leer la yow d'accord du moom mhm. wala yow moo xam substitution euh, de photo la moo xam substitution de personne mhm. am nga droit nga ne arbitre d'accord yow yaa am sañ-sañ nga ne kii moom la mais man pour man du moom dama koy photo li kan mooy indi photo boobu photo zone zone zone mooy indi photographe am ñëw taxaw zone bu paree mooy laaj ASC ba nga xam moo incriminé ne demande ñu photo mhm. mu ne ko da nga koy da nga may da ngay indi ma dem reproduire photo yi ASC e ba jël xaalis jox zone ba zone ba dem reproduire bu ñëwee. Hmm. yóbbu ko directement président CQRP mu tek ko fa. mais photo bobu euh, dina ànd ak. 13 18 lay doon dina wara a ak lepp la nga xam te dina wone ni. ben ben waaw parce que xam nga non xam xam nga photo tay bu photo. Hmm. il faudrait que tamit ñu matérialiser photo bi. motax tax toujours photo bi jour bi ñu incriminé. tay taxaw ak maye bi mu sol. bi mu sol. Hmm. capitaine am. capitaine adverse arbitre bi ak ben assistant qui fait que dañuy ah capitaine euh, adverse capitaine plaignant plaignant ni l'arbitre et son assistant ñu après ñu ko ñu ko bu maintenant. bu joxul zone la ko mhm. mais attends même après si biir foofu non même bu évocation def mhm. photo yu fayu mhm. zone ba les bras du def parce que dafa bokk ci yoon bi nga xam fa euh, li wax nit ki mën ngaa sañ nga ni nangam bii mhm. mais waroo am sañ aussi ne nangam bii ma wax dëggantaan bu génnee dama am cause. Mhm. parce que c'est à chaque fois que la am de cause. parce que nawetaan yow mën nga am sa xel ne maanaam affaire bi nangam ak nangam bii lay demee. Mhm. comprendre nga ah. parce que tu ne c'est pas de ton ressort de de de de comment de de de de juger. il y a un juge. moo tax juge boobu noonu nag doo ko fekk mukkul mu prendre parti moom fee lay dem taxaw toog di xaar waaw bu paree nag mu wax li muy mu wax li muy wax moo tax du du du du du amul par parloo amul amul amul amul dara waaw. Ah. léegi ñu gisaat encore euh, des fois euh, comme ni nga ko waxee da yaakaar naa foofu c'est close